tiital di la raay ak di def yenn façon yi nga xam ni tey na xel li bu fekkee ni yow ku sérieux nga li la waroon mooy nga daal di koy yemale nga daal di koy tegaat place am xam ni moo di yaayi moom li ko jaxase mooy le fait que wax ko li nga koy wax ba pare ki nga xam ni moo di fausse tante bu Sophie bu bu bu façon daal di koy wax leneen loolu nag tax na mu ñëw dal ci kaw Sophie waaye Sophie comme laameñam la yor fexe na rek boo wax ba génn si ñu jàll ci yaayu Sophie moom nag su moywul dina am ay problème ndax dañ ko gi nga xam ni nekku ci nekk na ci ba tax na nag ko fajee mooy daal di jaar ci façon ba daal di lijjanti lépp waaye itam doomam su fexe rek ba séduire ki xam ne moo di nekk ak moom pour am ci moom xaalis pour naka seen euh, situation mën a améliorer wu mu mel ni kon yaay ju nekk na ñoo xam ni ñooy dugal seen doom ci lu nekk waaye nag ñooy dugal si seen doom ci ay tuuxi duuna ndax seen intérêt personnel au lieu que ñu liggéeyloo seen doom wala ñu dem liggéey ñoom personnellement dañuy bëgg la facilité dugal seen jàll ci Babacar moom nag ñëw na apporter la bonne nouvelle à Aïcha ba noppi nag profité wu ci ngir ni ko moom parewul sax pour dund ay affaire wu ndax nit am na fooy toll di nga tal leneen lu dul nag di euh, nobante ñu jàll ci euh, kaawu papa yu Aïcha ndax moom gis nañ xaalis moo tax waa hôpital euh, téyewuñ ko ngir faj ko ni mu waree muy loo xam ni yaakaar naa war ko lijjanti ci Sénégal ndax nit koo xam ni tànk rek tànk amoo alal duñ la faj tànk xaalis yenn say ordonnance wala hôpital hôpital du la garder faj la alors que yaakaar naa bakkanu doomu aadama nekk na loo xam ni moo waroon nekk priorité ci lépp kon nit bu ñëwee te yarul normalement waroon nañoo def le tout ba daal di sauver bakkanam su paree ñu daal xool nekk na loo xam ni euh, du lu baax ba tax na nag moom mi nga xam ni euh, moo di alaaji xaritam bi mu wokkal jàkka ji ñëw ne nag xaalisu jàkka ji la ñuy jël daal di ko koy fajee même fekkee ni que moom mësul loolu ñu jàll ci yaayu Lamine moom nag euh, dafa conférence yi da cee bari torop lees waxul yi da cee bari torop ba tax na nag tey mu ñëw nag pour daal di xam euh, dëgg bi waaye nag waxtaan ak ki nga xam ni euh, moo di ngir mu xam ni mariage dafa nekk loo xam ni kenn du ko foowee kenn du ko ndax lu sérieux la waaye moom mel na ni xelu xale la ndax lu bari nag lijjantiwu ko lu bari xelam du ci dem kon boo kenteente di foofu la yem ci épisode 30 bu série Mariama ma leen dig daje si